fi toll nii réewu Sénégal nekk ci ak tiis ñàkk joueur bu fës loolu ci histoire football bu Sénégal di Pape Bouba Diop nekkoon jëmm ji nga xamante ne ràññewoon nañ ko loolu ci équipe nationale bu Sénégal ci atub 2002. Euh, ñëpp di fàttaliku but bi nga xamante ne moom la dugaloon ci contre France 31 mai 2002 nekk but bi nga xamante ne ba léegi senegal yi ñu ngi koy fàttali. Bouba Diop. bi ma déggee génn na àdduna li ma njëkk kii damaa daanu sax sama xol bi metti wóor na yàlla damaa daanu kiris parce que damaa xam ne joueur bu am jom la bu bugg a Sénégal bu bugg liggéeyam tamit fonk liggéeyam. dëgg yàlla tiis bu métti la ci réew mi waxuma la Afrique tout moom tuus bi métti métti la. xanaa kay di ko ñaanal suñ borom yàlla yërëm ko te xare ko war nañ ko defal image bu rëy rëy rëy rëy surtout président de la république ku mel ni Diego Maradona li ma dégg na Argentine ni nga koy defal wax dëgg yàlla buy ñëw sénégalais yëpp war nañ koo dem tertu ko njukkal ko ndax euh, coupe du monde 2002 ñu bëree bëri yaakaar naa ne fàttewuñ ko ndax li fa amoon ku ne xam ne bii bu fa amoon en tant que El moom moo ko dugaloon kon nag wax dëgg yàlla am na lu mu defal réew mi bu demee ba suñ borom wàccee ko war nañ koo ñaanal buy ñëw fii ñi teeru ko wax dëgg yàlla defal ko image bu rëy ba képp koo gis ci àdduna bi xam ne kii nii am na lum defal euh, réewam ba réewam fàttewuñ ko daal wax dëgg yàlla am nañ ci tiis bu métti métti mais nag àdduna moom ñin ñi sax moom kenn xamut fu ñu mujj mën nañ fi taxaw tey suba mu itam mooy demee noonu mais di ko ñaanal yàlla rek suñ borom yàlla yërëm ko te xare ko aljana Pape Bouba Diop yàlla na ko yàlla xaare aljana te teewe ko ay déwéni déwén waaw ku ñun booy dañ daan roy si moom quoi ndax bii boobu mu dugaloon ñun dañ daan fa bal dem tëdd si camp yi sax di xaar xaar bal bi ñëw pour pour ñu dugal ñu Pape a Diop bii boobu lañ tudd woon Pape a Diop nga daan gis ku daw tëdd sa camp yi di xaar bal bi ñëw pour nga Pape Bouba Diop ko man bi ma déggee ñu ne gaañu na mooy loolu noon quoi xam nga rek yàlla na ko yàlla xaare àjjana te teewu ko ay déwéni déwén. ah mun naa su wax moom ci tuuti rek de nit bu baax ka nit julli la lu mu dégg kat yi mbokkam yi wax kat yi wax bu baax la wax su moom ka yi vraiment danañ ñaan yàlla rek yàlla yàlla daal yóbbu ko aljanna bu gën a kawe ko. la ngay fàttaliku si Pape Bouba euh, moom vraiment kontaan naa si moom trop trop trop trop waaw. kontaan moom bu baax a baax wax parce moom yóbbu na daal Sénégal lu kawe kawe kawe kawe kawe loolu laa sa am moom nit bu baax na julli la nag. jullit la nit bu baax la bokkam yi moom lu lu wax démb moom lu baax rek su wax si moom te loolu moom jullit boo amee loolu rek aljanna la jem parce que xam nga lu tam ma gën koo bëgg tamit 2002 xam nga 2002 bi ñu bi 2000 xam nga bi ñu daje ak France jamono boobu maa ngi Côte d'Ivoire ñun Sénégalais ak Ivoiriens yëpp ñu ngi toog gis nga bu ñu demee ba premier mi-temps ah, bi mu dugalee bii bi ah, ah ñun sénégalais yi dañoo kontaan kontaan boo xam ne ah gis nga jour boobu dañoo invité Ivoiriens yi yëpp ñun Sénégal yi jamono boobu maa ngi Côte d'Ivoire dañoo def ñun sénégalais ku nekk 10 000 francs yàlla xam na ne li may wax ñu invité Ivoiriens yëpp ñu ñëw dégg nga ñoom ci seen bopp sax dañoo kontaan mujj gi dañoo taxaw di faral sénégalais ñu ne sénégalais de vraiment da ngeen a am jom nag. gis nga jour boobu ah bi ñu defee 10 000 10 000 parce que sama mag mooy chef. téye sénégalais yi foofu mais dañoo dajale ivoirien yëpp góor ñi ak jigéen ñi ñaari xar la ñu rendi ñu dajale leen ñu invité leen ñu yendoo noos jëndi boisson ñi nga xam ne ñoom affaire alcool moo leen neex ñu jëndal leen jour boobu foofu la ñuy yendu ci suñu kër ba 18 heures ñu ñibbi xam nga loolu nag Pape Diouf bu mel noonu Pape Diouf bu demee man dama ci am naqar parce que dafa am benn bis boo xam ne moom bis boobu li mu defoon du ma ko fàtte mu ba ma xëy dee kon nag maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te yéexañu njabaat bi mu bàyyi yàlla na ci yàlla def barke ba ñun ñëpp ñu jib si ñu teg ci suñu bët kontaan naa nag yàlla nañu yàlla defal jam mu ngi amoon nag ñeent fukki at ak ñaar faatu si dimanche bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent fële ci réewu France Sénégal gi nag àdduna sépp tamit di ko naqarlu mu nekk tamit ki nga xamante ne ba léegi jëfam ak tamit lu mu liggéey ci wàllu football ba léegi Sénégalais yi ñu nga koy seereel tamit di ñaan suñu borom rek maanaam dolli ko yërmande li ñu mën a wax rek kii di Pape Bouba nekk joueur bi nga xamante ne joueur bu fës la doomu tëngéej bi nekkoon jëmm ji nga xamante ne ba léegi koy jooy te noppeeguñu ndaxte jëfam ju rafet ak tamit wàllu yaram wàllu ko tegginam ak li nga xamante ne tamit moo di talent bi nga xamante ne bés bu yàlla sàkk mi ngi ko doon wane ci terrain rawatina ci coupe du monde 2002